man damay tudd tur Cheikh Mbacké Bara Dolly mënul nekk président groupe parlementaire il percevait wala il perçoit toujours six million par mois avec un budget conséquent yow xayra am problème mu ndox mënoo jënd trois kilomètres yoo xam ne dañ koy roof ci suuf si bu ñu ñëwee nax leen naan Ablaye Wade Ablaye Wade li mu war a def def na ko ñi ngeen fi mujjee woteel fii muy yeewi askan wi ba ngeen leen wotelee est-ce que am na ku jaaraat ci seen jotaay yi wax leen ni leen nangam ak nangam damay jël maire Ndack mais programme bi ñu ànd muy développement ñi ma ciy jàppale ci ñooñu ngeen jox ñoom la ñu fal mooy ñu nekk ay PDS ak ñu nekk yeewi askan wi président Macky Sall dafa jot li ko Serigne Mountakha ñaanal. ñun taalibe yi ñu defal ko ko Serigne Touba lim bëggal nit ay taalibe ñoo ko mën a defal Cheikh Bass Abdou Khadre moo ko wax barki démb ñëpp di ko dégg mu ne sëriñ bi moo ko wax ni ko man dey politique duma ci wax mu ne ko politique duma ci wax waaye ndax ñoom ñëpp ay taalibe leen waaye président Macky Sall de ni ma def tax na dinaa dugg ci barab bi boole kook borom barab bi waaw bëgg-bëggam borom mbégte mi ñun nag waruñu cee waruñu koo def nag waaw woteel Macky Sall ndax day tax nga waga wala nga gaana dafa jot ñu am esprit xoolal fépp am na ministre fépp am na directeur Touba amul ministre amul directeur parce que duñ gagné ay élection ku dugg ci saree di naan man de Macky laa bañ duma ko woteel nañ jël esprit boobu teg ko foofu kii buñ ko falee jotawut ak Macky Sall jotawut ak Idrissa Seck Mohamed Cissé mu ngi def ay formation di def ay développement di jàppale jigéen ñi mais ñii fal ñuy dem ay Casamance di dem ay Louga pourquoi ñu leen di jàppale kon nag dafa jot ñu def benn prise de conscience xayra ku fi dugg ku fi dugg yor ndomba tàgg da ngeen a war a jël ay yet duma ko ci opposition bi ndax dangeen leen jox seen carte mën a leen am ndox te ndox mooy lépp li ma yéene wax leen ko kii ak ñi nekk ci moom jëmm jii rek defe naa ni fi mu bokk bu toppee président Macky Sall ba léegi am na fu mu toll soxna yi nañ leen waxtaan kenn ku ne tëdd ak njegenaayam bu ñu jóge woon fii di dem dakaar balaa 10 heures ñu àgg hôpital bii niveau 4 lépp am fi nit ñi di jóge ay Wuro Soge maatam di fi ñëw mu def ci éducation lu am solo jël ay bourses yéen a ko wax maire bi li mu wax presque c'est un million deux cent mu ni dafay defaat un million de ménages joxe ceeb joxe dund ñu koy saaga mosul wax kenn lu ñaaw. ñuy tudd lu ne yéen jigéen ñi bërki dem bu opposition bi ñu saaga leen suñu yaay pale ku fay dugg bis bi muy wax bis bi muy wax ni bi Cheikh Abdou Bara Dolly di wax naan jigéen ju fa dugg nangam ak nangam Serigne Cheikh Say ci président Macky Sall la yendu ak doomam ju jigéen ñu koy wax maam say Mbàkke waa kon nag yéen jigéen ñëpp sàlloor na leen te jigéen ñi mooy suñu yaay jox leen président Macky Sall ndam li ñu jàppale leen. maa ngi sant nag sunu gan gii fi ñëw tey di ko gërëm di ko waxal ci tiw turu waa Xaayra di nuyu Bas Njoom mii nga xam ne sunu mooy sunu kilifa ci Xaayra gii di nuyu ñépp nag di wax ne ñun waa jigéen jigéeni Xaayra ñoo ngi nuyu Fatou Mbaye bi di ko sant di ko gërëm ndax ab koñ boo fa nekkee tekki fa dara dañ lay tatagal te Fatou koñ bii mu ne tekki na fi dara ndax bourse yi nga xam ne génn na bëkk démb lu néew néew faatu génneel na ma ci fukki nit ak juróom yooyu bu dëgg nañ ma wax ñëw nañ sama kër faatu binduloo ma leen seen message wàcc na fukki junni ak juróom benn te jiyaar la may sant faatu baax ndax man ku ne xam ne ne mënu maa wax ci mbooloo wax ci mbooloo du sama jikko di nuyu faatu mbay di ko sant ndax faatu mbay lépp luy teraanga ci dëkk bii faatu Kebe nii defal na ko nit bourse yi ñëpp am ceeb xaalis lépp luñ fiy joxe ku amut yàllaa la xañ waaye moom xañu la ndax guddi bëccëg suba ngoon heure bu nag ngi dugg ci nit ñi indi kaa d'identité ma bind la indi lii ndi njariñu koñ bi léegi nag gan yi fi ñëw ñu leen di wax ni legeti kese na ku naxuti bëy ku ñu nekkal ñu nekkal la te Fatou Mbaye Kébé mii lu jóg ma nga ca lépp luy njariñ luy dugg ci koñ bi ku ko ci am mën nga koo sant ku ko ñàkkit war koo sant ndax bu sañoon ñëpp ñooy am léegi nag jëmm jii moom it dañoo séq déggante nañ téléphone waaye la ko waxoon démb mooy sama waxu tey man xaw ma caaxaan xaw ma tappale du ma naa féq te ku ma nax ma bàyyi la dégg ñun nag waa xayra amuñu ku dul yéen gisuñu ku dul yéen li waa ji wax am nañu fi nekk ñoo xam ne ay ndombay tànk lañ am waaye defaluñu dara root nañ bay bëgg a dee amuñu ndox tiwo yi bi mu ñëwee ñun ñi yore suñu mbootaay dañ cee def suñu ñaq def ci suñu xaale far mu échec waaye ku ñu nekkal daal ñu nekkal la. ndax comme yéen a ko waxal seen bopp amal na leen njariñ nit nag bala amal leen njariñ yow it da nga koy amal njariñ fexe leen koy jàppale nit nag na koy jàppale mooy li koy dooleel. comme soxna Faati Kebe dañ ko jox ab liggéey mu ciy liggéey te fàttiwu leen ci dangeen ko cee fexee dooleel nit nag du ne ci ker way laa ne ci banqaas mu koy keral mu di ko gor néew ko bari xob yi bariwut waaye fexe leen koo suuxat ngir mu gën a yaatu kon gën leen a jàppale soxna Faati Kebe mii comme amal na leen njariñ yéen a ko waxal seen bopp am ngeen i député xamu leen lan mooy waloru député te ay député am na fi ci koñ bi yéen a ko wax seen bopp euh, ñun Touba nag euh, soit dañu xamut lan mooy suñu carte wate yi ñu xool ñi ñu koy wateel ñu di ñu leen ko jox gis nga bas ñoom mais même buñ ko investir ci bi bu ngeen ko wateelee day mel ni bu gañee day mel ni mooy député bi parce que amul kër ndakaaru bay dem di fa tëddi yéen lay bokkal nekkal fii kon kenn ku nekk ki ngay jàppale gis nga politique kenn ku nekk ki la gën a jige ngay jàppale bas ñoom mi moo leen gën a jige Fati Kebe mi moo leen gën a jige jàppale leen ko ñu gañe ngeen xam ni yéen yéen a gañe député yii nga xamante ni tànn na leen te Mouhamed Cissé mii bokk ci ak sëñ Galas Kaltom mu Alaaji Baara ak Cheikh Abdou Bali sëtu Soxna May di doomu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Soxna Mariama Diallo di sage femme ak Soxna Rama Daba Diouf dëkk Mbacke ak Cheikh Bara Gueye nekk ci monde rural bi ñu tànnal ñu ñooñu ngir ñu doon député ci liste bi ci départemental bi jëmm ji ñëw toog fii jàkkaarloog yéen ñu présenté ko léegi ni taalibeb Serigne Saliou la Serigne Abdou Lahad jël ko jébbal ko Serigne Saliou mu jàngal ko alxuraan ba mokkal yar ko ba mu ni nër boyalu ko nag mu dox ci jamono ji da ko jàngal lu ñuy liggéeyee mu dem bitim réew dem France dem liggéeyi doon ndaw macha allah yàlla dimbali ko dénk ko wërsëgu àdduna ci liggéey boobee mu doon liggéey ndeyam gërëm ko baayam gërëm ko ay mbokkam gërëm ko ay dëkkandoom gërëm ko ay xaritam gërëm ko sëriñam gërëm ko kooku lan leen indil tey mi ngi nii toog di Mouhamed Cissé. di ma limee damay juum mënuma lim ndax ñëpp tey damaa kontaan di ziare sama mbokk relais yi yi nga xam ne poste de sante bii bu xayra bi rawat jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëñ Xaadim Njaay sëñ Fallou Fay Mariama Bopp di ziare yéen ñëpp léegi nag yëf yi dañ koy waxtaanee ndax Macky Sall yàgg na fee mu yàgg na fee perte du fi am du fi gagné du fi am député léegi nañ leen defaraat toogaay bi man Faati Kebe mënuma dara lépp président Macky Sall lépp président Macky Sall ndax gis nga boo xoolee fii ay jaune jaune jaune fu ne ñu jóge na fa rawatina Rama Gueye mii ñoom ña nga jóge ba teen maam Cheikh ñëw seenug baax rek moo ko def ak président Macky Sall man mayu ma ci kenn dërëm waaye lu ma am dama koy bokk ak doomu aadama yi. kan nag bu ngeen bëggee président Macky Sall gañe waat ndimbal leen ma ngir yàlla ak Rasulullah sànnil ma Mouhamed Cissé mii. waaw ndax bàcc mii laa xam bàcc woo ma téléphone na ma Mohamed Cissé investir nañ ko ci liste bi gis nga bu invité woon ko bu investi woon koo xam ne sax Pape la tudd sax joxoo ma kuy Pape dama koy voteel man président rek ma ñor ndax Macky Sall borom yërmande la borom xol bu rafet la gis nga bu fekkoon ni nit ko soxor la wala ko iyaan la nëgë ni mi ngi dopp ci nit ñi di toppante wala mu leen def leen lu xamul ca li gis nga lu mu am Touba la koy def te musu leen a gañ musu ta gañe Touba ay waay waay ngir yàlla ak rasul laa jëm sëñ Mour bu sa jàng changé leen position mi toog ñu ànd na président Macky Sall ndax Mouhamed mii baax social moo tax ma mën a ànd ak moom man mbirum social rek ma ñor la jaaña nga ne ba ma xamee ëpp de 10 ans social rek ma ñor Basirou ñoom mi ci social lañ xamee bit bu set dañuy jàpp ñun ñotti fuñ ci jëm ñu jëm fa jàppale leen président Macky Sall bu baax mu gañe man li ma defal lépp sama xol sedd na waaye jàppale président Macky Sall seen bourse yi continué seen projet yi dox seen lépp dox éducation jàppaleen président Macky sàll président Macky Sall am na ne baax na laa biir na bëgg na waa Touba xoolal seen hôpital bii li fi def xoolal seen appuyage bi koo def Fuuta ndax bu ko defoon Fuuta ñun ñi dañuy dem te seen yéen new ñi fi mais Touba la ko def bañ denk ba Ila Touba lañ ko tudde xool leen tere xel ni mu foore mu tudde ko Ila Touba nañ ngeen ko jàpp te yàlla rek tax soxna Amy Daas mii chaque jour mi ngi dox ngir yàlla ak social la rek ndax bëgg président Macky Sall jàppaleen président Macky Sall ca yàlla rek tax loolu rek laa la ñaan yéen a may dégg yéen mbooloo mi waa xayra yéen a dégg ñaanal mu am ko ñu jël ko jox ko mu yeggale mission yi mu bëgg a def lépp wasalaam. siyaare soxna faatu mi nga xamante ni jàmbaar la man Mouhamed sise lu may def ci poste dugaluma ci politique waatal naa leen Serigne Touba mi nga xam ne moom rek laa gëm ba ma dalee di politique ba léegi dërëmu politique musul dugg sama poste dërëm bi gën a tuuti musul dugg sama poste su ma ci naanee ndox. damaa ñëw seeti nit xëy na ci ñi may àndal di politique dugg seen kër naan fa ndox wala ma lekk fa dara musuma toog ak benn homme politique wax ko sama bopp du sa Seck du keneen ku ma ci toogal jafe-jafe waa dëkk bi laa koy wax ak ñi may àndal koo xam ne soxla woon na ko loolu mooy politique politique politicien mooy lu bon mais politique pour développer fi nga dëkk loolu ku ko deful keneen mooy ñëw toog sa place def fa lu la neexul ca ñun lii nga xamante ni ci lañ nekk di ko sàkku toogaluñ fa Macky Sall toogaluñ fa Idrissa Seck toogaluñ fa kenn waa Touba gii lañ fa toogal ca kenn kenn mënuñoo tax a def loo nga xamante ni lu dëppoowul ak bëgg-bëgg sëriñ bi la ci loolu lañuy dox ci loolu la ñuy wax ndax ci loolu lañ ñu yar di wax ni nag dafa jot. ñu ubbiwaat nag xel yi président Macky Sall dafa dalal waa département bi bi ñu ñëwee toog waxtaan ak moom wax ko seeni soxla mu ni leen da ngeen di fexee gagné yéen tamit ndax lii ngeen may laaj muy ay ministère ak i direction mënuma leen koo jox yéen ñi gañewul bàyyi ñi gañe ca loolu mooy dëgg lu ci mën di doon danga koy xool ci sa bopp rek kon liñ ko war a jàppalee mooy le 31 juillet ñu fexe ba mu jël ndam li gagné élection yi ndax président Macky Sall kat mi ngi ñuy bëgg a yaay ba mu fi toogee ba léegi gagné fii te yàqalu ko dara teewul ma ngay gouverner loo xam ne nag moom boo ci jàppee mu dem boo ci jàppul mu dem dangay ngay fexee bokk ca ñaxee jàpp ca il temps tamit nag ku xool déglu waxi sëñ Mountakha ji war naa tax ñun ñu am beneen gis-gis bu ñu am ci moom. ndax bu dee bëti xol moom sëñ bee ñu ko ëppale ñun moom li ci kaw rek la ñuy gis sëñ bi nag day gis li ci kaw di gis li ci biir bu demee ba taxaw ni moom kat yaakaaroon na ni mbiri àdduna dootu ci waxati waaye makki sàll ji na ko loo xam ni jaral na ko mu jóg dem ci sëriñ tubaay ñaan ko ko loolu rëy la te dañu wax ni sëriñ bi moom ku mu ameel bor rek taalibe ko war a fay te ñun ci loolu la ñu nekk. yàlla xam na ne man sama sëriñ ba ma jébbalu bu ne ma woon génnal ci lii suba kenn dootuma ci gis kon nag ca sama sëriñ sëñ taxaay sëriñam li mu bëgg nañ ko ko bëggle ndax président Macky Sall day bëgg am maanaam ndam ci suñu kaw saa bu xëyee di ko gën a woon ginnaaw moom muy gën a jàpp sëriñ bi ndax département Mbacké bii du benn département Sénégal 46 département la Ila Touba ñun lañ ko defaral hôpital bii ñun lañ ko defaral ak yeneen ak yeneen ak yeneen bët nag bu rusul toj soxna Faatu man de am naa yaakaar ni jigéen ñii fi toog ba heure bii dinañ la jàppale ci li nga bëgg ca nag yëf yi jigéen ñi la jigéen ñi yëf yi ñoom la.